ngi nag sant waa Sénégal yëpp bàyyiwuma séeréer bàyyiwuma tukulóor waa Gambi waa Saalum maa ngi gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn ba ñuy laata julli timis dem naa ca jàkka ja dawal ñaari rakka ma ni sama doom ji nim ma sagale yàlla na ko ni yàlla sunu borom sagale sant yàlla rek di ko ñaanal rek wér ko ñaanal a gudd fan bu ànd ah, moom laa doon ñaan de yàlla nag mooy maye moom laa yàlla. waaw ah, ah, waaw ndax moo ma a jaaxle ci àddina ndax yàlla jaaxalu waaw mosu du ma mos a jaaxle waaw. doon ñaan suñu yàlla ci yàlla suñu borom rek. di ñaan yàlla suñu borom rek ku wax ma ne ah yàlla di mooy maye. waaw waaye na nu yàlla may liggéen ci ñun. Ah, a ma damay daan doon ñaan yàlla mu daan nag li ma doon ñaan yàlla may na ma ko yal na ko jig yal na ko jig ak képp ko ko yéene nag gërëm naa ñëpp bàyyiwuma kenn bàyyi maa ngi gërëm ñëpp gërëm di gërëm waa Thiès waa gërëm waa Bambal di gërëm waa Fandène di gërëm waa Saloum di gërëm waa Ndakaaru Ndiaye bàyyiwuma kenn kenn kenn sonn nañ ci sama doom bi waaye coono nag ah yàlla loo muy mujjee na ma noppal na ma waaw ma sonn benn yoon waaw ma sonn benn yoon ma wax ni mi koy def sonn ma benn yoon te jaaxlew ma it doy na sëkk maa ko wax. lii yal na ko jiit Balla doy na maa ko wax. ndoxum galas ci moom yàlla na mel ni soow mi moom nampoon te ñu ko doon nampal